da ngeen xam ne nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi jot ci weer wi danañ taxaw fii séentu weer wi ginnaaw bu ñu jullee timis ba noppi danañ yéene ci rajo jumaa ji ne sëriñ bi nee na nañ maase séentu weer wi noonu la ñuy jokkoo nag ak région yi nga xam ne ñoo ñu seq rawatina ku mel ne sëriñ Bachirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous ak sëriñ Modou Mbacke waaye di jokkoo it ak ku mel ne sëriñ Modou Mbacke si mu nga xam ne moo jiite représentant xalifa général des mourides yi ci région yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi loolu nag bu ñu ko defee ba waxtu jot danañ àndaat ak Serigne Abdou Diop mu jot ndigal ci kër Serigne Touba Cheikh Mamadou xam xamle li nga xam ne moo jote ruuse ci commission bi tey jii nag la euh, gaawu yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci diggu Tabaski ginnaaw bu ñu séntoo weer bi waxtu jot kàddu yii la Serigne Abdou Diop di yëkkati ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. Mbacke Kadior TV Mbacke Kadior TV. ni ko Serigne Fallou Galass la waxee rek. liñ ko baaxoo def muy sëñ bi dañuy diggal ci ñaar ak fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne ñu dikk ci jumaa ji yéene ne ni niñ séentu weer te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bi ñu defee noonu ba noppi nag ñun waa commission bi ci njiital sëñ Modou Mamoun Bousso dañuy jóg dañuy toog ci soowu jumaa ji di di weer yi di ko séentu suñu bopp ak di taatam xibaar yi ci gox yi bi ñu ko defee ba waxtu wii jot na nga xam ne sone nañ gee di ko waaj a nodd lañ liñ dajale ci xibaar mooy gisuñ fenn fañ wax ne gis nañ fa weeroo mu looloo tax nag ñu jokkoo kër sëñ ba bañ jokkoo kër sëñ bi yëgal ko loola it moo daal di joxe ndigal ci kon ñu xam ne suba ci ci dibéer ji mooy mooy fanweereel fan fanu digg bi diggu bi kon ñu xam ne suba dañuy mottali tabaski gi ndax kenn gisu ko dañuy fet mottali euh, digg bi kon ginnaaw suba ci altine ji mooy doon benn fanu tabaski bi kon sëñ bi loolu la joxe ndigal ndigal loo xam ne mi ngi ko aj ci séentu gi ñu doon séentu ba gisuñ ko ñu yëgal ko ko muy mu tam war a joxe ndigal li loola ca la joxe ndigal xam ne kon suba dañuy mottali fanweer ci digg wi ginnaaw suba ci altine ji mooy doon benn fanu tabaski gi na ko ñëpp xam ñaan bu yàgg fi lool te te wér tan ba li mu yéene ci yoon bi mu def ko te ànd ko moom mm. jërëjëf Serigne Touba Abdou Khadim Diop imam Touba moo doon jottu dëkk bi maas mooy doon fanweeri fan kon nañ jàpp ne alarba mooy doon tabaski gi ndax benn panneau ne lay doon eh, fukkeelu fan bi mooy àllarba kon nañ jàpp ne àllarba yemoo ak le 21 mooy war a nekk tabaski kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal seen bokk taalibe Fallou Galass Syll nekkoon fii ci jumaay Cheikhul Khadim jàkkaarloo ak tali Alaaji Babacar Kébé Ndiougo yàlla na ko suñu borom dooli ngërëmul yàlla ak yërmandeem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fii si Touba mbokk yi saa su ngeen itteewoote pressing ak blanchisserie bu méngoog jamono si ay machines yu xarala personnel bu xam wàll wi seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké si Touba nekk si usine glace route Nindi sa càmmoñ si wetu pharmacie bi jàppale ni nag bu ngeen fi accès da ngeen fi fekk soxna Muslim Mbacké mooy la responsable moo leen di taxawu ak équipe ba mu àndal doon équipe bu xarañ professionnel xam wàll wii mi bu fekkente ni nag da ngaa bëgg a neex bu ànd ak couleur da koy gën a renforcer couleur ba day gën a rafet ngay seen muy gën a éclaté bees tàq muy rouge wala bleu wala jaune doo si am dara lu la naqat yi bu fekkente ni également da ngeen am yëre boo xamante ni dafa am tache tache nag moom mën na bàyyeekoo si lépp lu ñuy jëfandikoo wala encre bu tuuru wala matière bu mën a doon maanaam daal yëre bi moom bu gàkkee jàppal ni ak sunu ay produits fii si seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbacké da ngay am la nga bëgg da kontaan am benn trace lii nag mbokk yi ñoo xam wàllu wi pressing bi mbokk yi mën nañu liggéey xam nañu wàllu wu nu mel te nag boole ko set ak sell mën na nag liggéeyal ku nekk bàyyi xel loolu kilifa yeeg dëkk bu sell bii di Touba bu fekkente ni seen biir kër da ngeen am nag ay dara ay rideau wala jumtukaay bu ngeen bëgg mu seet lépp a yemb suñu ay machine xarañ na suñu personnel naka noonu kenn du ñoom waaye nag la gérante soxna Muslim Mbàkke moo leen di gàttandu taxaw si lépp lu ngeen bëgg yamuñu foofu de dañuy passé ba mu am ay pli ay boo amee sa trois pièces indi ko fii wala nga am sa xaftaan jàllaaba yëre jigéen bu mu mën a doon grand boubou taay basse kulim ju mbokk boo fi ñëwee doo ko rëccu dañuy nag gom ba mu saf sàpp boole koog yëre bi bu pare day xeeñ neex ndax nag suñuy produit moo fa jaar produit yoo xamante benn effet secondaire sa biir yaram da koy gën a préserver day gën a dëgër day gën a bees gaaw leen gaaw woote si 77 514 bu ngeen fi accès xam ni seen jafe-jafe si wàllu seetal jeex na bis ni ngi tey